الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحبه الغر ما يامين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخوتي أخواتي ها نحن نقف مرة أخرى في هذه المسلسلات وفي هذه الأيام المباركة عند الحديث الشائق في السيرة العطرة للمصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام من بعث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا كنا قد وقفنا عند ميلاده المبارك وكيف ان الزمان والكون قد استنار بذاك الميلاد وكيف ان الاشارات الجمه والرموز العديده وكل الكون بما فيه كان قد حس وشعر بأن هناك تحول في التاريخ تحول في الزمان تحول في الأمكنة تحول خطير بل بداية نهاية وموعد قادم موعد الآخرة فتم كل ذلك في شخص الرسول عليه افضل الصلاه والسلام فكانت حياته بتفاصيلها تضم في طياتها كل ما قد جرى وما سيجري للانسانيه فكان بحثها مجال تفكر وتامل للوصول إلى حقيقة ما نحن فيه لذلك يقف الباحثون والمتحدثون عن الحقيقة المحمدية لإدراك أن هناك شكل وهناك مضمون فحياته حياة لها شكل بداية ونهاية ومراحل كما هي سيرة ولكن لها مضمون عميق لها اعماق وابعاد والى هذا ان شاء الله سنصل في بحثنا مع ميلاده العطر عليه افضل الصلاه والسلام بوكيو تدي نيجي عند اكسانغبي صلى الله عليه وسلم تخاون نيو تسين وقتانو ديمبو تيغانيك الدينام ganek àddina boo xam ne dafa ñëw di am lu muy wund dafa ñëw di am lu muy tekki dafa am bu ñëw di am lu muy ñu muy tinki nit la bëgg a tinki nit ku ñu tënkoon ci ay barab tënkoon ci ay jëf tënkoon ko ci ay melokaan nit kooku la ñëw pour daggal ko buum njaameel tënk-tënk yooyu téye ko mu mel ni nag ñëwam ga dafa am ñaar yoo xam ne moom la làmbool ñaar yoo xam ne moom la ñëw pour traiter ko àddina li ñuy wax aalamul xaybi ak aalamu shahaadati maanaam li wéer nit ñi te ñu koy waxtaanee li ñu wax l'abstrait li ne li réer nit ki te léeg-léeg mu koy uti ci ay yëg-yëg ci ay gisaanekat ci ay nit yoo xam ne danañ boolante ay mbir xam li ñëw li ñuy wax analyse ci ay nit yuy jàngat démb jàngat tey mun a waajal ëllëg kon aalamul xay bi loolu ump nit ki te waxtu wu nekk bugg na koo yurndu loola nag am ay xooti xooti xoot yu bëri li ñuy wax alxay bu xaybaan maa xaaba anka wa maa xibta anhu ñaari xeet ñooy ñoo lay réer benn bi yow yaa fi nekkatul mu réer la benn bi daf fee nekkagul réer la mu mel ni kon aalamul xay bi loolu réer yonent bi sallallahu alayhi wa nar naa ñëw ubbee ci aalamu shahaadati nag mooy yi ñuy gis mooy le concret kon lële abstrait la woon léegi itam war ñoo traité le concret li ñuy gis ñu ngi koy gis ak si ñuy gët ñu ngi koy dégg ak si ñuy nopp ñu ngi koy xeeñtu di ci am ay yëg-yëg ñu ngi koy làmb di ko daj ñu ngi koy waxtaanee ci suñuy làmmiñ waaye loolu nga xam ne juróomi jumtuwaay yi rekk lañ ci am ndax li ñu wax rekk la ndax li ñu foog rekk la ndax li ñuy nettali rekk la ndax aalamul xaybi ndax aalamu shahaadati nekk na lu yomb ni nga koy waxee mu mel ni foofu itam danañ ci taxaw ci ne am na shahaada wa shahaada am na loo gis ak leneen loo xam ne yaa ngi bémpéng ci kanamam maanaam yaa ngi xool yaa ngi koy séen wala boog mun nañoo jàpp ne yaa ngi koy séen waaye fekk am na lu dox sa diggante ak moom kon ci biir yooyu yépp nag mom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñew nar ko traité ci motax nak ñu war ko top ci dundam di wax bam gëné adina di wax alamul xayb manam ñu jituon ko jitu won soxna su melni asiya jabaru fir'aun ju bax ja ak maryam soxna su tedd sa yàlla kañ ko tagg ko ñooñu ni ñëwalee soxna Amina mu tedd mu baax ma ca bis boobu ca guddi googu di ko ndokkeel kon aalamul xaybi ak aalamu shahaadati tase nañ àddina bu weesu buñ gisatul buñ déggatul lu abstrait ay nit yoo xam ne jàpp nañu ne ñooña wéy nañ mënatoo leen gis ñëw nañ ak seen jëmm li ñu wax albarsax nit ñi nga xam ne jóge nañ fi waaye bàyyeekoo fi del si nañ ku fi nekk ba pare nag am lu ko gane si muy amina tase na ak ñooñu ñu gis ne kon tase am na diggante aalamul xaybi ak aalamu shahadati li ñuy wax temps ak espace daldi nañ ko jël boole ko màkka ba Kisra lu yem ni fa yonent bi ganee àddina ca màkk ba nguur ga gënoon a mag mu nekkoon ca Iraq di nguur ak Perse diggante boobu leeral nañ ko jege nañ ko ba Amina ngi seen néegu Kisra yi kon espace teggeeku na yàlla mi defoon espace def dara dox fa fexe na ba espace boobu mu teggi ko Amina di jàkkaarloo Kisra noonu nag demit ci yi nga xam ne yépp yi temps doxoon na seen diggante mooy la xewoon Mariama ma woon alayhi salaam ma woon ca jamono ji njëkk loola yàlla jegeel na ko ba koo ko bokk si kon temps yàlla teggi na ko pour boole ñu bokkutoon jamono ñu mun a toog ndokkalante espace boo xam ne bu soree la yàlla teggi na ko ba lépp mu boole ko teggi li ñuy wax temps ak espace te fekk nit doom aadama daanaka jafe-jafeem yépp mi ngi nekk ci temps ak espace moo tax waxtu nu mu gën a gañee ñaar yooyu rek di gën a gis ne mi ngi gën a jëm kanam gis nañ ko ci àddina yi tey àddina yi tey soo xoolee révolution bi fi am bi gën a mag révolution technologie communication ci la bokk ñett yi nga xam ne moom lay tuddee le net le sat ak le sel maanaam internet satellite ak cellulaire ñett yooyu fexe nañu ba fu bëri fu umpe woon nga mun koo gis mun koo déglu mëna wax ak moom mun caa bind mun caa yónnee image ñu yónnee la nga jëflanteek ñoom kon loolu yàlla def tey ba mu mujj ne làmbang tasaaroo ci barkeeb yonent bi keroog ci guddi googu itam indi na ko en miniature mu am ñu ko dund kon problème temps ak espace mo ñëk feñ ci juddu gu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne élément yi dañ ko teggi ndax moy li nga xamné ëlëk suñ ko téggé moy message bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak digëm ba ak fami joxoñ ñu xamné ne loola jege ndax dafa ñëw pour joxoñ ci dafa ñëw pour préparé si dafa ñëw pour teg fondation fondation ba nag suñ demee ba gis njoloxtoon la la mu defoon keroog ñu séen ko ci kaw ñu xam ne kon tabax ba maase na kon sallallahu alayhi wa sallam suñ la taxawalee ci kanam kéemtaan yi yañ lay wax nga gis ne bu ci nekk rekk du légende du kese maanaam du nettali boo xam ne dañ la koy nettali rekk mu weesu sa dégg-dégg waaye nag luñ mën a déggaat la luñ mën a jàng la luñ mën a xam la luñ mën a toog xalam ko la luñ mën a toog xalaat ca la kon sallallahu alayhi wa bi mu ganee àddina niñ ko waxee démb jamono muuñ na jamono setal na ay bëñam kontaan xam ne nag moom jamono yàgg naa am ay jafe-jafe waaye jafe-jafe yooyu nag nar naa teggeeku si mu mel ni nag ci loola ay xew-xew a ngay wéy alayhi abdul salaatu ko waxee woon yàlla tànnal na kow tur jële ko ca turam wa moom yàlla moom yàlla mi ñuy sant nekk Mahmoud jël na ci turam Muhammad ñu jox ko ko ñu ko jiitu woon ci tawraat ak injil muy évangile ancien testament ak nouveau testament ñoom ahmadu lañ ko tuddee maanaam cant ga dañ ko multiplier kuñ dëkk di sant su ko defee téere yépp waxe woon nañ ko ay màndargaam ak i melokaanam téere yépp waxtaane woon nañ ko yooyu yépp dañ ko gisi ci kanam dañ gis ne juif yi suñ ko daan laajte dañuy génn seen téere di xool di laaj melokaan yi loo leen ci wax rek ñu ne waaw loolu démb gi nii danañ ko gis ci kanam kon noonu itam la làbbe yi meloon suñ ko daan waxtaanee rek dañuy ubbi ni ah loolu kay mi ngi ne fàng téere yi ñu koy gis xam nañ ko kii xam nañ ko comme ni benn euh, làbbe waxoon mu ne ni ma xamee sama doom walla sax lu ma lu ëpp loolu ndax waxoon nañ leen ci moom lu nekk dara réerutoon ndax yonent yi daf leen a itteeloon ñu koy jàngale di ko waaraate di ko bàyyi ci xeli nit ñi ba bi mu yegg see xam nañ ne kiñ doon séentoom gi loolu nag waxoon nañ ko ca fa mu juddoo ba ni muy ujjee ji boromam ak la muy indeeg la muy tasaare kon loola gane na àddina ci bis boobu bis ba nag am na werante am na ñu ne ci rabiul awal ba ci ñaareeli fan ba la am na ñu ne ci juróom ñetti yàlla am na ñu ne ci juróom ñeenti waaye ñun jàpp nañ fukki fan ak ñaar yi nga xam ni tabaarakallaa suñu mag ñu baax ñi moom la jàpp di ci doxee mu nekk lim boo xam ne ànd nañ ci ñoom ñëpp nag ànd nañ ne ci bisu altine la ñi ci ëpp wax nañ ne ci rabiul awal la ñu néew walla kenn ku naadir moo wax ne ci weeru koor la waaye ñoom ñëpp yegg si nañ ne ci rabiul awal la boromi xam-xam nag yi wax ci aja ci weeru ajam maanaam le mois grégorien euh, ñoom dem nañu ba ne sax 20 avril la ku mel ni Baddi di ab borom xam-xam bu nekk ci Muritaan ci abyaat yum def tuddee ko tahniatu rabii ma nga naan ibrilu xiina saara ishrina wasta naara dima xawal faxaara yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu gënee àddina yaayam war koo nàmpal wax nañ la ne fekk na baayam génn àddina am na sax ñu wax ne baayam dund na ak moom waaye li gën a wér gën a tasaaroo loolu yëpp nag mooy natiiru histoire natiiru histoire mooy toujours dafay am ay version yu bëri ak ay thèse waaye nag ñun dañ lay nettali rek thèse bi nga xam ne moo gën a siiw ñu gën koo jàpp waaye nag mënul nañ laa caa dugal ñii wax nañ ne nangame at ñi wax nañ ne fii la loolu itam yëpp dafay indi ne ñëw na bett ñëpp moo tax jëruñoon dundam minute par minute bi demee nag ba feeñ ba mat nag ci lañ dawaat topp gan nekk nag war a mun a nettali yow la nga gis ak la nga xam ak la nga fekk mu mel ni nag sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga ko waxee baayam génn na àddina te fekk mi ngi ci biiru ndeyam yaayam amina judd na ci kanamam ci yooyu ñu la waxoon ci ay xew-xew baayam maamam abdul muttalib jël na ko bégee ko tuddee ko muhammad bàyyi ta xam sax bu mel ni abu lahab goreel na ci jaam bégee ko yooyu yépp nag borom siiraa nga koy wax ak ku nekk lala la la ca fekk si loolu yépp nag xew-xew bu mag a ngi ñëw mooy bokkoon na ci jukko yi arab joxe sa doom ñu yóbbu ko nàmpali ko nàmpalkat yi nag di ñëw ni ki nga xam ne ñi jóge ci àll bi danañ koy ñëw ci taax yi di fi ut si li fi am ñoom itam di propose liñ am échange boobu musta dañ bokkoon na nag ci li gënoon a dox niti àll xam ne ñoom lañu ñu ci ñoom yar bu rafet ñoom la ñu séentoo ci ñoom la nature naturante maanaam jaww ju neex ju rafet ju ju baax ci nit ba suñ ñëwee xale yey juddu liir ya ñu yóbbu leen mën leen a nàmpal mun a noppal seeni waajur waaye mun leen a jox itam ab yar jox leen itam environnement boo xam ne bu sain barab boo xam ne ak dund boo xam ne ëllëg dana leen dimbale ci seeni yar nampalkat ya nag yegg si nañ ca dëkk ba ñu ngay wër ci biir wër googu nag ku nekk ci ñoom jël nga koo xam ne dana danga ca mun a am ab fay su ko defee boo yóbboo di mun a fayeeku loola mun laa delloo siwaat lu mag am na nag koo xam ne jàpp na ne moom sooy na mu ngi tudd Halima ma nga bokk ci giirab banu saad ñi koy wax Halima Saadiya Halima Saadiya fu mu dugg ñu ne ko ah ñun de ñiñ amoon joxe nañu leen ba mujj gi ñu ne ko ah am na fi daal benn xale boo xam ne jirim la yaayam baayam génn na àddina kooku de soo ko jëlee itam luñ la mun a fay walla ko la mun a fay mooy posé wu comme problème mujj gi daal mu ne laata may ñibbi ak loxo loxoy neen xaaral bon ma jël ko ndeke jël na tono ba xalimatu saadiya nag mooy jël muhammad sallallahu alayhi wa sallam war a départ ak moom te fekk mbaamam ma ma nga loofoon waaye mbaamam ma rek daal di delsi kàttan ndax xam na ki ko war kan la daal di gaaw ba pare nag boolewu koog benki ñenki ñëw ba ko jiitoon jëloon dem bañ fàtte leen mu leen di raw di leen rocci ci yoonab dëpp ba ba ñu ngi naan xalima yow sa mbaam nii kañ la mel nii ak nim loofee woon ba mu yéggee ca banu yéggee ca àll ba lum laal rek mu naat lum jël di ko rat lam daan joxe mu joxe lu ko ëpp tool ya commencé ñoom itam ndax nature beeg lépp a yëga ndoor jëmm ji la mu àndal njëyam lépp wërsëg la jubluwaayam lépp ak wërsëg la fu mu xool fu mu jum si rek yiwu yàlla jub jublu si fa te noonu rekk la mën a deme yonent bi alayhi afdalu salaatu wasalaam ñëw foofa ma ngay nàmp foofa nag feeñal na fa kéemtaan yu bëri li xale di màgg ci weer moom daan na ko màgg ci bis nga xam ne nel ku précoce la waaye nel sax précocité boo xam ne weesu na àpp nga xam ne yëpp da koy sentir ci moom dangay ngay ne daal mag nga nekkal kii daal kilifa la kon yàlla teel na ko ubbee yàlla teel na ko jox fatxu ubbil ko ba mu nekk ànd ak léppam sagoom ba soo toogee ak moom xam ni nit ku mata ngi mu nekk fa nag ay at nenañ mat na ñeenti at ci biir at yooyu nag xar nañu xol ba génne nañu ci biiram lépp loo xam ne sikk la war a nekk ci nit te fekk ma ngay xale loola mooy firi ne nit en tant que nit yàlla daf koo bind ak ñaar force ak faiblesse nit koo gis ay manqué manqué ci moom mu mën a def ñi ne cam ak mat ci moom mu mun a def ñu ne askay nit koo gis mu mel ni nag moom wàll woo nga xam ne manqué manqué doom aadama la ayib la lu war a mun a ndax ba loolu diisal ko mu defi bis lañ mën a wax ne bu taxutoo nag loolu dañoo ñëw rekk xar xol ba dindi ko ca ñu xar xol ba demee nag am na ñu koy karikature dañ ko opération la dañu def lii dañu génne am na itam ñu ko mun a déggee rekk ni booba rek la mat booba lañ gis ni kenn mënta amaat ci moom luñ mën a wax ba mu neree ba def wala ba mu waxee lu mu warta wax wala ba mu defee lu mu warta def jàngalekat nag lay dooni boo xam ne léeg-léeg jàngalekat bu nekk teg lu mànke ngir nit ñi jàngee ci waaye du fekk fekk na jàngalekat ba moom loola xam na ko waaye nag ci jàngaleem teggi ak tegaat waaye mat na jàng na kon nag moom itam yàlla mat may na ko ak mat mat ak ni ab sikk boo xam ne sikk la dootul jógee ci moom loolu la alquran di firee ji plus tard alam nashrah laka sadrak yow dañoo ubbi sa dënn li tax nit di mer tax nit di manqué tax nit di daanu ci wum warta daanu wala mu wax lu mu warta wax ndax ci biiram léeg-léeg mu am yu mu gis wala lu mu dégg dafa mel ni moom loolu lañ ko dindil loolu la alquran di wax charxu sadr dënn bu yaatu day dal nit léeg-léeg dana am ay moment ci dundu nit ñu wax la dara rek lu jarta mer nga mer ba su weesoo sax suñ la ko waxee ngane waw meron na ci way nak nag maa ngi leg jeggalu itam nit nek ci inchiraaxu sadr yàlla may la nga nek ci bonne humeur bale mauvaise humeur li ngoy wax bi nga nek en bonne humeur sa xel dal ba nga xamné ne danañ lay wax sax lo xamné jarna mer waaye nga naxasaale ko teg boole koog muñ ba ku waroon a mer jëflanteeg yow sax jàllal bi ko di la jéggalu moom mi def te fogoon ne atteindre na la mujj naan la jéggal ma ci mu mel ni nag inchiraaxu sadr boobu nit di nekkee nga xam ne doo mun a fexe ba atteindre ko du mun a fexe itam ba def loo xam ne danañ ne jëfam ja loola nekk ci biir nit ndax nit dafa am ay force yuy xeex ci biiram li ñuy wax an nafsul amaaratu bi suu wàll wi lay sant nga def lu bon ak an nafsul lawaama wàll nit bi nekk ci yow di la yedd naan la ëpp nga lii xoolal fa nga bokk ay lii buñ la ci fekkee looy wax ak a nafsul mutma wàllu dal ngay nekk ci nit ba tax du xaar lu ko yedd wala muy xaar lu ko sant ci leneen am na équilibre dal na la ak annafsu raadiya wàll way tax bu la nattu dalee lu mu métti métti nga nangu ne ñi la waroon a demee dogalam yi yàlla la la destin yàlla ni la ko buggee nga nangu ak annafsul mardiya wàll bay tax nit mun a yegg ci yàlla gërëm ko ba su defee rek ñëpp ne ëskay nga ne diwoo ko wax ëskay nga ne diwa ko def ku nekk bugg koo toppandoor fekk yàlla gërëm jëfam ci biir yooyu nag état bi escalier yi am na nag yeneen am na nafsu daniya nit ki topp li koy sant lu bon ba mujj rek daal di nekk ku égaré koo xam ne daanu na yàqu na am na itam boo xam ne effort la laaj dafa jo laaj nga jóg xeex ak moom rendi ko ni ngay rendee ab mala noonu ngay rendee mala boobu nekk ci sa biir loolu nag la wax an nafsu zakiya alquran di wax qad aflaha man zakkaha ki rendi mala boobu nekk ci biiram di ko def loolu warul kooka sauvé na mu mel ni nag suñu waxee opération boobu mooy dañ ko rayal mala boobu nga xam ne danay ñëw ci nit di ko sant di ko defloo di ko poussé ba mu war def loo xam ne warul kon yonent bi sallallahu wa barakaatu